yi toog ci plateau bi di nuyu euh, bokk yi seetaan Eye Africa TV rawatina jotaayu Good Morning Africa. daal di rek xool euh, yi ci gën fës ni ki niñ koy rek defee euh, saa bu ñu xëyee rek tey nag ñu nar koo door am ñetti kër ëttu yëglekaay ci réew mi benn bi di stand di point bu ci nekk nag xëy na solo ci euh, xëtam wi su ko defee rek dañuy xool ban euh, lañ ci rek daal di dooree ci ñetti yooyu mi ngoog Amadou standard la ñuy dooreewaat tey jile standard moom xëy na moom it bind bi mi ngi noonu gis ngeen ko xët yu am solo la daal rek bind su ko defee ñu ëñ xool xët wu njëkk buñ ci njëkk rek daal di euh, comp mi ngi noonu Ahmed May njiital làngu politique googu di GMC wa noppi mu doon ki nga xam ne Euh, layokat la euh, moom nag daal dina àddu ci liy xew ci Sénégal neena na nag mu ngi euh, ñaax nguuru Gambie gee Gambie ñu bañ a dugg ci li nga xam ne mooy jafe-jafe ci wàllu politique bi nga xam ne moom lañ nekkee noonu nee na fitna ya xew Gambie waru ci rek daal di dugg ndax nag nee na Sénégal réew mu moom boppam la réew moo xam ne la moom na boppam te ci wàllu démocratie réew la mu ci rek màgg ci seen institution yi institution yu dëgër la Sénégal dina xam nas lay def ba ginnaat ci jafe yu mu nekk mu teg ci tamit ne naam sax Gambie ak Sénégal lu wokku Gambie lu wokku Sénégal xuri Gambie te it am na ndaw yu bari yu dëkk Sénégal nekk fii di daane seen doole bi te du tee nag ñu ngi leen di mastawu te di leen ñaanal waaye lépp loo xam ne ci lu jëm ngir di ci dugg moo xam wax la moo xam jëf la loolu nañ ko rek daal di moytandiku te ñaanal leen ñu daal di delloo ci waat ci jàmm euh, ci rek nu mu gën a gaawee ndax nag nee na Sénégal réew mu moom boppam la ba tax na nag muy ñaax réewum Gambie ñu daal di ci mandu lu dul di leen ñaanal ak yéene leen jàmm ngir jàmm gaaw fay dellu si waat loolu yi la daal di xamle euh, moom euh, may fàtti ñu wax ci leneen ba tey dañu desaat réewum Sénégal njiiti réewum Gambie di Adama Barrow moom woote dal ak jàmm ci réewum Sénégal ngir rek ñu daal di teg lépp ci suuf indiwaat jàmm ci waxtaan ci déggoo ci li nga xam ne rek mooy li ñu xamee Sénégal muy jàmm moom njiitu réew mi Adama Barrow daal dina nag fësal loolu jaaree ko nag ci ki yor euh, kàdduk euh, nguur gi ngir rek muy woote jàmm ak dal euh, ci réewum Sénégal ginnaaw fitna yi nga xam ne daldi dinañ ko rek nemmeeku foofee ci alxamis ak léegi moom njiitu réew mi nag di mastawu ñi nga xam ne ñooy sénégal yi waaye nag di leen ñaan ñu daal di rek euh, toog def jàmm ngir rek li nga xam ne mooy dal euh, dellusiwaat ci réew ma euh, foofu. Amadou ba tey ñu wax ci leneen ba tey Sénégal ndax lu def waxu lu ay di jàmbat ki nga xam ne nag moo fi nekkoon jëwrin ju mag ji ci réewum Sénégal wala nekkoon na jëwrin ju mag ci réewum Sénégal maanaam prime ministre di Aminata Touré ñu gën ko xam ci Mimi Touré borom Mimi 2024 moom nag daal dina bind ci li nga xam Facebook am euh, di xamal ki nga xam ne rek mooy këru attekaay yu mag yi muy ICC euh, ngir di wax ki nga xam ne mooy euh, toppekat bi maanaam prosecutor bi mu daal di nag bàyyi xel ubbi li nga xam ne mooy ab lu ñu tu maanaam investigation ci rek bakkan yu rot ci fi nga xam ne rek mooy Sénégal ci rek feeñu yu fa am ci rek alxamis ak léegi ba ñu tegee loxo ba ñu ki nga xam ne moo ko daal di daan ko ñaari ati kaso yu muy tëdd moom nag nee na euh, ki nga xam ne euh, mooy ministre xam ne moom moo jiite ay si muy kuréel euh, yu mag yi ci àddina si ngir nag ubbi li nga xam ne nag moo di ab lu ñu fukki bakkan ak juróomi xamee ni ministre of interior di ki nga xam ne moo di John daal dina xamle lu toll ci fukki bakkan ak juróom rod na ci ki nga xam ne nag mooy Mimi Touré daal dina ko ubbi ne lii bu ñu ko bàyyi mu daal di rek dem noonu nañ ci rek ubbi ab lu ñutu ngir xool ñan ñoo waral loolu li ci yoon santaane ñu daal di koy rek def ñu wax ci leneen dañuy tëj standard ubbi Forea Forea moom tamit xëy bind xët yu am solo ci rek xar kanamam gi su ko defee rek ñu daal di koy ëj xool ponk bi ci gën a fës bokk na ci ponk bi ci gën a fës ca Basse euh, ki nga xam ne mooy Mouhamadou sise euh, di kii fa NPP daal di sampoon ci jongante gox goxaan yi te mu win chairman foofee nag moom ak euh, ay kansulom daal di nañu leen waatal. ngir rek ñu daal tàmbali nag doxal li nga xam ne rek moo di liggéey bi ñoom nag daal dinañu waat ñoom ñëpp foofe ca Basse Area Council ki nga xam ne nag mooy Mouhamadou sise daal dina nag diggéey yu mu def ba askan wi wóolu ko daal di koy jox li nga xam ne moo di seen gox dina rek fexe ba sàmmanteeg loolu lépp luy rek jëmale Basse Area Council ci kanam ak goxu Basse moom dina ci teg euh, kéem kattanam ngir rek daal di koy matal moom ak ay kansulam keroog ca ndaje moomee ba ñu ko doon rekk daal di waatal euh, ñu wax ci leneen delluwaat Sénégal Foria moom it xëy na dikkaat rek ci lu standard bind di rek euh, nguuru Gambie gi ni muy rek daal di wootee jàmm fay ca Sénégal ginnaaw ba nga xamee ni jàppante beeg eh, xeex bu takkarnaase bi xew foofu ci diggante takk der yi ak ñi nga xam ne nag ñooy feeñu kat yi maanaam protestas yi loolu gi ñu ngi nag ñaanaat rek dal ci réew mu foofee ndax loolu lañ xamee rek eh, Sénégal ñu wax ci leneen tëj ya, ubbi di point point moom it point lu am solo ci xar kanamam gi su ko defee rek ñu xool eh, bu ci njëkk buñ ci rek di comp ECOWAS muy rek kuréel gi ëmb réewu Afrique saw jant yi ñoom nag ñu ngi woote jàmm ak dal fa nga xam ne mooy Sénégal waaye ginnaaw ba nga xamee ni euh, dàq nañ teg si ñaawlu euh, li nga xam ne mooy fitna yi xew foofee ca Sénégal ba noppi nag ñu ngi woote waat dal ak jàmm. li nga xam ne rek mooy mbir yi ci suuf ngir jàmm continué waat démocratie sax li nga xam ne rek moo di yoon ak yoonal mën a rek def li nga xam ne mooy liggéeyam te nag benn fitna du rekk amaat foofee ca réew ma. ñu wax ci leneen ba tey ba tey Sénégal te nag këyit yi Amadou dañ xëy sa sàpp fi nga xam ne rek moo di ca Sénégal ginnaaw euh, ñaari fanu li nga xam ne rek euh, moo di ay feeñu maanaam ay protest ci réew mi foofee euh, li nga xam ne rek moo di bakkan yi ci rot bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bi di Foroyaa toll na ci fukki bakkan ak juróom ci li nga xam ne moom la ministre of interior daal di rek joxe mbir mi nag daal dina yéeg ba toll foofu ak nag juróomi téeméeri ndax yoo xam ne dañu leen jàpp ak ay ngàndaay ak li nga xam ne mooy lu ñuy woowee cocktail molotov ak yeneen i anam yoo xam ne te nañ ko euh, bu ñu sukkandikoo ci yëgle kaay bi ñu jëlee ko ci ki nga xam ne euh, moo di euh, police nationale ñoo rek daal di xamle boobule rek xibaar Foria xëy moom it di ñu ko rek daal di nettalil Amadou Amadou kër ëttu yëglekaay yi tey lii lañ daal di xëyee su ko defee rek ñu daal di koy tëj.